tey di bisub màggaluk poroxaan di bis bu tedd di bis bu màgg di bis bu jara warmaal di ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ni ñoo fa jëm yàlla teg leen ci yoon wu sedd guy yoonu jàmm ak xéewal te ñu dajee fa ak Sëriñ te tibb ca may te delloo seeni kër ci jàmm kenn bañ cee am sax xoosu xoos mbaa fatt fatt mbaa gaañu gaañu ñëpp delloo ci jàmm ci barkeb soxna jaaratullahi Mariama Bousso di ñaaxit mboolem ña fa jëm ñëpp ñu yóbbaale ndab loo xam day boole ñaar mooy ndab lu yaatu te set ndax Sëriñ Tuubaa kat noonu na ku fi ñëw loo yàkkamte yàkkamte danga ma fa fekk mbaa ma fekk la fa ko foo xam ne kat wóor na la danga fa fekk Sëriñ mu fekk la fa kon euh, danga danga faa dem ngir duy ngir tibbi gannaaw danga faa dem ngir duy nag ci Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa ñam wu sell la yor ndax ñamu yonent bi sallallahu alayhi wa la yor te yonent bi ñamu sun borom tabaaraka wa taala la yor sel nag day aajo ndablu sel bu ko defee yaatug ndabli nag moom loolu moom mi ngi aju ci pas-pasub nit ki kon ndab loolu kenn ku nekk war na koo yaatal ndax lu mu rëy rëy rëy dana fees te sellal ko ndax ñam wu sell ci ndab lu sell lay dem te ndab loolu mooy xol kon kenn ku nekk na nga yaatal sa xol te it na nga na nga setal sa xol waxoon nañu démb ba agsi ci soxna si fi mu ñëwee ci kër sëñ Mor Anta Sali ak nam fa xase euh, ci yitteem ju kawe wax ne dana fa am asamaan mi nga xam ne mu ëmb jant ak weer bi mu koy waxante soxna Anta Njaay Mbakke waaye pas-pasam bu kawe boobu ak pësteefam boobu mosu cee teggi tànkam ba lam doon wax am mu mujj ko am ndax Sëriñ Tuubaa dafa mas a wax ne ñaari baay yi de xamut kenn ñaari baay yi xamut kenn muy bàmmeel ak bitig ak barke bàmmeel xamut kenn ay jëf la xam bitig tamit borom bitig bi ubbi bitigam xamut kenn ko yor njëg la xam waaye barke it xamut kenn ku ko sàkku la xam moo tax wërsëg suñu borom daf koy able waxtu ko neexee mu nangu waaye barke suñu borom daf koy jaay te ko jënd la nga jënd yaa ko moom moo tax barke du jeex mu ko waxtu nekk day yokk looloo tax ñuy dund ci barkeb soxna si ba mu yaatu ba àgg fu ne te ci lañ yaakaar a dund ñun ñëpp bu ëllëgee ci jannatul firdaws yàlla na ci yàlla boole kon soxna Mariama Bousso Jaaratullaahi li ma waxoon démb na loola lu waxoon la tey dañuy dem ci nim ko lenn ci nim ko jëfee lay wane jëf na ko waxu ko rek da koo jëf la Sëriñ Tuubaa waxoon soxna Penda Diop ne ko na nga xam ne kat euh, jigéen ak jihaadam maanaam jiha jihaari jigéen mooy topp boroom këram ca nam ko ca la neex yàlla wal taalami anna jihaada niswati fii taati du na duna miriyati loola it soxna jaara da koo dund liggéeyal sëñ Mamoor Anta Sali liggéey bu rëy bu kawe bu jéggi dayoo boo xam ne nii mëseefu koo gis mëseefu koo jàng tamit ci taarix nekk koo xam ne nii bëtam mosu koo tegg ci bëggug sëñ moor di dàkk ak bëggam nga xam ne lépp loo xam ne lu ko war la ci kër ga ak lu sëñ Mor bëgg du nekk mu koy digal wala du nekk kenn di ko ci jiitu te it mas sa def lenn lu ko sëñ Mor di tere sëñ moor mosu koo tere dara. te am na kilifa goo xam ne ba may yeb doomam muy dem ca kër sëriñam dana ko boo demee noo fay nekkee mu ne ko xanaa lu ma digal ma def ko lu ma tere ma bàyyi ko. bu xiifee ma jox ko mu lekk bu maree ma jox ko mu naan bu tilimee ma fóotal ko mu ne ko yow naroo am lu baax ne ko li la war te lépp di lu baax nang ca nekk jiitu ko ca ba du la ko tala digal te bul nekk ci lu lay tere balaa xiif na lekk balaa mar na naan balaa tilimit nanga ko fóotal noonu la ñuy sàkkoo barke soxna si noonu la doon def dàq gi doon dàkk bëgg ko sëñ Moor nag tax na Euh, sàkkit woowu ñuy nettali nga xam ne maanaam xewee wutoon sax poroxaan ma nga xewoon Kour Mbacke dafa gis sëñ Mor Anta Sali di yëkkati sàkkit bi ngir di ko takkaat te booba dafa xaw a xiin di di maanaam di nawetal waxtu gannaaw gee la bi mu ko séenee mu daal di waaxu dem fekk sëñ Mor fa mu nekk mu ne ko ana loo bëgg mu ne ko dama laa gis nga mel ni da ngaa bëgg ko la jàppale moo tax ma ne naa ñëw jàppale la téela la mu ne ko waa téel ba ma ñëw wuti lu ma ko takkee xiin wa daal di sàq ngelaw li tàmbali mu daal di fay jaaree fatu waaye jàpp na ne it soxna si fatu ji na soxna si fanaan ci sàkkit woowu yi téye ko mu fanaane taw ci kawam sedd bi fanaan ci kawam ak ngelaw li ba ci fajar bi sëñ Mor jógee la ko séen mu koy niru nit mu ne ana lii ana kii kum mu ne ko man la mu ne ko looy def fii waxtu wi mu ne ko yaane ma woon téel ma ma ñëw sëñ Mor bég na keroog mbég moo xam ne nii ñaanal ko ñaan yoo xam ne loolu bokk na ca li nga xam ne ni moom may soxna si barke te it loolu dañ ko cee tudd waaye dundam gépp noonu la ko doon dundee ak sëñ Mor Anta Sali jaay na ay takaayam jox ko sëñ Mor addiye ngir liggéeyal ko ci sëñ Mor na ko aw ñam amut matt mu xargaalam xambee ko ko sëñ Mor a ko gënaloon ak njabootam gënal ko boppam gënal ko léppam te it ñoom soxna yu baax yi noonu lañ daan sàkkoo barke dañoo wax ne soxna Aminta Lo wayjuru seex Moustapha ak Cheikh Mamadou Amin Baara mas naa gis sëriñ bi mu génn mel ni daa bëgg kum yónni fekk booba mi ngi uuf Cheikh Moustapha muy ndaw ci zahir waaye da koo sànni mu daal di daanu jël bu métti mu ñëw ci sëriñ bi mu ne ko analum dan mu ne ko dama laa gis nga mel ni da ngay wut koo yónni mu ne ko moo tax nga sànni sa doom ji mu ne ko waaw na la wóor na de jëllam boobu lum lum am ëllëg jëllam boobu moo ko kon ñoom noonu lañ doon sàkkoo barke. kon xam naa bu soobee danañ ñëwaat ci ni mu doon liggéeyalee nag waa kër ga ak dongo ya ba ca jur ga ak yenn woy yi nga xam ne Cheikh Moussa Ka tagg na ko ko ci ay jikkoom yu rafet. di siyaare ñëpp nag ci màggal gi di sàkku ñëpp ñu ñaanal ñu te fasaale nu yàlla defal ñu tawfiix gudd fan ak wér ak xéwal yaatu.